بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokk yi nu ngi sant sunu boroom subhanahu wa taala nu ngi koy bàkk di ko kañ di julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi day sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk na ci li mu daan tàmbalee njaal beeni waxtaanam mooy bépp waxtaan wu ma sa fell di ko wax waxtaanee téere yàlla bi moo ci gën a baax inna axsana alxadiisi kitaabullah mboolem yoon yoo xam ne da ko mas a xotti di ci jaar ci àddina yoonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ci gën a jub moo ci gën a baax li gën a bon ci loo xam ne doomu aadama topp na ko mooy lu nu sos loo xam ni amul cosaan ci njàngalem lislaam lépp lu ñu sos bidaa la bépp bidaa alkande la alkande bu ko borom wàccut sawar la koy tàbbal yàlla borom bi boo lañu musal ci loolu bu ñu fàttali ko waxoon nañ leen ni bokk na ci sew-sew yi nekk ci tadabbur quran mooy alqiraatu bil layl borom xam-xam yi nga xam dañoo taalif bind ci fàttaliku ak jariñu ci alquran dañuy wax ni ki gën a mën a tadabbur quran mooy ki koy jàng ci waxtu guddi te loolu alquran la ko njëkk a wax ndax inna nachiata al layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qiila njàngam guddi déeyoo gi nit ki déeyoog boroomam ci waxtu guddi moo gën a dal ci am njàng moo gën a dal ci tabbig alquran ci xol borom bi subhanahu wa taala def na ni mbokk yi téereem bi keroog bi mu ko wàccee ba tey téere bi lim doon saf ba tey mi ngi koy saf alquran ji mbokk yi keroog bi ko sunu borom wàccee ba tey lam doon ballu ci ay njariñ ak ay leer na meloon mi ngi mel ni ba tey problème bi kay mooy xol yi ci boppam moo melatut na mu waroon a mel comme ni mu ko waxee afala yatadabbaruuna alquran am ala qulubin aqfaaluha ndax dañ dul seetantal alquran wala boog xol yi dañ koo xombe benn waaye mu ne Omar ibn alxataab wallahi xol yi dañ koo xombe xanaa yàlla mu dimbale ñu mu tijjil ñu ko bu ñu seetloo aay yi nga xam ne moom la imam mujjee jàng buñ ci defoon ay waqafaat yaakaar naa ni mën nañ cee jëriñoo insha allah bu ñu seetloo borom bi subhanahu wa taala mi ngi ñuy nettali ci lenn ci saar woowu muy suratu taaha nettali bi yonent yàlla Muusa alayhi salaam Muusa ay yoon wax naa ko fi ci duruus yin fi am ni borom bi defal na ko tawfiqi day amul saar wu tudd Moussa ci alquran waaye nag buñ doon séddale quran moom kenn du ko ci ëppale moom la benn ci borom xam-xam wax ni kaada Moussa an yudhiba bi thuluthi alquran xaw tuuti kon bu ñu séddoon alquran miraas ko buñ ko xaajee ñetti cër Moussa moom benn ba moom kese moo koy jël dem yoonam te wax na dëgg ndax borom bi subhanahu wa taala mbokk yi ku seetlu nettilib Moussa ni ko suñu borom joxe yitte ci alquran loola lam lay wan mooy nettali bi am na solo li ko tàmbalee baqara ba kër nga yegg si suxufi ibrahima wa muusa néew na ñaari saar yu tegaloo lu dul muusa dugg na ca lan moo nekk ci nettali muusa ba sunu borom di ko baamtu baamtu yu bari yooyu ban ngëm yàlla ban xeetu ngëm ak dëgëraay moom la aji gëm yàlla ji war a mën a jëlee ci nettali muusa ba tax ñu koy baamtu ak a baamtuwaat loolu ab laaj la gën njàmbaarte ak dëgër ci wàllu iman moom la Moussa meloon ba borom bi subhanahu wa taala foo dugg rek mu juqi as lëf ci nettaleem sànni ko fa kan moo nekkoon Moussa ci dëgëraay ga ba borom bi tànn ki gën a saay-saay ci kaw suuf ni ko demal nga wax ak moom xam ngeen ni borom bi subhanahu wa taala du tànn lu dut koo xamante ni xiyara mi ngi ci moom wa yaxtaaru ma kaana lahum alxiyara borom bi subhanahu wa taala du tànn mukk ca moom képp ku mu tànn rek am na lu ne ca moom mbokk yi xoolal addina bi ni mu yaatoo ak li ci nekk ci ay mbindeef yàlla joxañ benn nit ni ko yaa muusa inni stafaytuka ala nnaasi bi risalaati muusa mu ni naam mu ni ko man yàlla maa la sempe ci biir nit ñi tànn la bi risalaati nga dem doxal ma ab yónnent wa bi kalaami nga jottali li ma wax loolu mbokk yi rëy na torop fa xud ma aataytuka bi quwa Moussa li ma la jox ba yow nga téye ko bu dëgër ak du lu ñuy foye teyit nag na nga sant yàlla nag wa kum min achakirin lu tax ngay sant yàlla mooy borom bi subhanahu wa taala daf laa tànn ci biir mbooloo moo xam ni ñu bari bëgg nañ li nga yore Moussa alayhi salaam mbokk yi ku dëgëroon la xoolal koo xam ni yàlla ci boppam du nit ñi ñoo naan xam nga ñun nit ñi ñooy seede di wax ni diw day ku baax la ku am cër la ci yàlla yàlla moom moo seedeel Moussa ni Moussa ku am cër la ci yàlla wa kaana inda allahi wajiha Moussa ku amoon jaax la ku dayoon kawe la ci yàlla subhanahu wa taala maanaam bu doon ci waxi nu jamono dañu nitu yàlla piir la kon wa kaana inda allahi wajiha ayo alladina la takunu ka alladina aadaw Moussa fa barra'ahu allahu mimma qaalu wa kaana inda allahi wajiha Moussa alayhi salaam borom baa ngi nettali lenn ci histoire am ci saar wi borom bi subhanahu wa taala ni ko idhab ila firawna innahu taga Moussa kaay ma yabal la ci firawna ndax firawna kat deew na ba jéggi dayo mbokk yi ndax Moussa alayhi salaam ndax borom bi subhanahu wa taala bi muy yabal Moussa ci firawna ndax borom bi mënul woon a yabal ku ëpp doole Moussa di am malaaka te bu ñëwee da koy wax bu jëfewoon mu alak ko axankay borom bi mën na ko waaye borom bi defu ko li tax defu ko mooy lam waxoon du loolu moom suñu borom lam waxoon mooy dinaa wàcc njub te dina yegg si ba mu leer ku topp gindeeku ku sànku nga al ko kon faw mu yebal ak yonent boo xamante ni nit lay doon ngir borom bi gën a am aw lay ci nit ñi qul fa lillahi alxujjatu albaliga moo tax képp ku borom bi mbugal rek day fekk am naw lay wu mu wu mu la mbugalee ci sa kaw parce que la mu war lonteel moom ak jaamam yi def na ko mooy yabal na ndaw lu ñëw di la waar innahu taxa moom dafa bew xool borom bi subhanahu wa taala ku mu seede ni kii dafa bew te borom bi ma noon ko alag waaye alag ko ndax borom bi subhanahu wa taala moom du doxalee noonu Moussa alayhi salaam automatiquement bi ko sunu borom ne demal rek lim njëkk a yëg mooy doomu aadama bu demee ak yëfi boppam du sotti loolu ku nekk ci ñun na ko yëg gis nga lépp looy jëm même jub gi nga jub nii naan da ngay julli ci sax bis boo fasee ni sa yëfi bopp la nag doo réussir yàlla rek moo la mën a dimbali subhanahu wa taala rabbi shrah li sadri yàlla yàlla nag ma yaatal sama yaatalal sama dënn yaatal dënn gi day ñëw bi maanin al maana al ula mooy borom bi sotti leeru iman ak yaqin ci boromam ba dara du ko tax a dellu gannaaw amma saani mooy Moussa alayhi salaam ku amoon tàngoor la ak xadar te tàngoor ak xadar léeg-léeg day defar waaye li ëpp day yàq daawa kon bu ko borom bi subhanahu wa taala sottilee leeru iman mën na koo jural ak dal ba dëndam yaatu mën a supporter yu bari inshirahu sadr bokk na ci mooy nga yaatu dënd ba mën di supporter yi nga xam dañ la koy tontu te effectivement kaddu yi gën a salte te gën a yereediku firawna wax na ko Moussa te Moussa tontuwul loolu firnde la bu lay wan ni ñaanam bii nangu na ndax Moussa ku ko xam-xam ni ku tàng la woon ku jikki dayoo sax ci tàng maanaam Moussa demoon na ba bis bu meree te su ma nee mer nag bàyyil xel ni mer ngir yàlla moo tax ndax yonente alayhi salaam jomb nañ di def yu ñàkk solo yu doomu aadama yi def Moussa moom saa bu meraan te yàlla moo tax mu mer dootul amati contrôle xoolal ci suratul araf wa alqal alwaax àlluwa jéeg ni mu fooree ak ni mu sellee yàlla moo ko bind ci loxol boppam Moussa sànni ko parce que booba mer ngir ni sama mbokk mi sàggan na ba ñii di jaamu xéram moo ko jàpp kon lam doon mer yàlla moo taxoon gis nga de wa axada bi rasi axiihi yajurruhu ilay kim bokkal ndey ak baay mu téye bopp bi ak sikkim bi di ko gësam gis nga pour wan la alquran soo koy tadabbur wallahi lu nu soxla ci àddina rek mën nga ko cee jariñu xoolal bi mu ko xëccee Moussa ak Haroun ñoo bokk ndey ak baay waaye daf ni ko yépp na um yow sama doomu ndey waa léegi est ce que bokkuñu bàyyi on kay ñoo bokk bàyyi gis nga borom xam-xam yi dañuy wax ni doomu aadama ci jamono yi dimbalante ak sentiment bu yegsee ki nga bokkal ndey moo gën a jege ki nga bokkal bàyyi te ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay mu ne ko yab na umma yow sama doomu ndey ji laa taxud bi lixiyati parce que borom xam ne dañuy wax ne waxin woowu moo gën a daw yaram ci sentiment tàbbi ci xolu Moussa alayhi salaam te ñoo bokk ndey ñoo bokk baay waaye foofu kenn tuddul baay yaay la ñu tudd parce que bu mbirum sentiment ak dimbalante yegsee bokk yaay day gën a foor bokk baay borom bi subhanahu wa taala mu ni Moussa ni rabbi shrah li sadri wa yassir li amri borom bi yàlla na nga yombalalal samay mbir waaw yàlla na nga yombalal samay mbir ndax borom bi subhanahu wa taala lépp lu mu yomb yombal mu yomb lu mu jafeel mu jafe moo tax yonent bu dëgmalal benn mbir wax ne allahuma la sahla illa ma jaaltahu sahla yow sunu borom de amut lu yomb lu dul li nga xam ne yaa ko jël yombal ko wa anta tajaalu alxasana ida chita sahla yaay jël lu jafe def ko bu la soobee mu nekk lu yomb waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli yow borom bi subhanahu wa taala sama làmmiñ dafa am ab fasu fasu maa ngi lay ñaan nga feccil ma ko loolu defe naa waxoon nañ ci durus tafsir yi ñu amoon Moussa alayhi salaam amoon na benn xeet dotom bu newoon ci làmmiñ bi donte terewu ko woon a jottali ay waxam nag mu teg ci waj'al li waziran min ahli waaye haaruna axi borom bi dama dama bëgg nga wutal ma koo xam ne daf may sës rëkk ci man waaye dama bëgg mu bokk ci sama famille moo tax Aïcha radiyallahu anha biñ ko laajee man mbokk nga xam mu gën a bëgg am mbokkam mu ni Moussa alayhi salaam ñu ni ko lu tax mu ni damaa gis ni kuy ñaanal sa mbokk la nga koy ñaanal néew na waaye Moussa lim ñaanal ki mbokkal dafa rëy moom dañuy wajaal li waziran min ahli mu nekk Haarun mu ñaan yàlla mu nekk ab yonent tamit mu ni Moussa kon bi muy tinul frère am daf koo tinu ba yàlla def ko ab yonent ndax xam ngeen Moussa moo ñaan loolu alayhi salaatu wasalaam am na beneen aaya borom baa ngi wax ni Moussa dafa ñaan borom bi soo talaa yàlla def haaruna mu nekk bu yonent yàlla tamit ni ko def naa ko mu nekk ab yonent moo tax mu ni ki gën a tinu kum bokkal bañ defal ko ay njekk ci kaw suuf mooy Moussa parce que moom daa tinu di tinu di tinu bañ defal ko magam mu nekk ab yonent mu ni haaruna axi haarun ba pare mu ni axi usdud bihi azri wa ashriku fi amri yàlla na ma ko dëgëralee nga xam ngeen doomu aadama lu lu mu mën a yore ci dëgg bu nekkee kenn mën naa wéet waaye bu nekkee ñaar daf koy dëgëral moo tax mu ne ustud bihi azri wa ashrikuhu fi amri nga dimbali ma borom bi sotala mu bokk ci saa yëf maanaam mën a ànd ak moom nga xam ne ñoom ñaar dañuy mën a def muy kay nu sabbihaka kathiran wa nadkuraka kathira borom xam-xam yi dañuy wax ni topp yàlla gooy def am ci àndandoo ak wéttal day tax mu gën a baax nga gën caa sawar gis nga nii ñuy def nii ku nekk mën naa dem sa kër jullee ji waaye jàpp na ne la gën mooy la salaf doon def te law kaana gayru dalika xayran la kaanu awala saabiqina ilay am na ñoo xam ne xëy na dañuy taamu julli seen kër liñ def lu baax la kenn terewu ko waaye dama ni salafu saalih bañ gisee Omar organisé nit ñi di julli ca jàkka ja ñoom dañoo xam ne dem ca jàkka ja moo gën ñu dem defi ko kon doomu aadama lépp lu muy def am kum ca wettandikul day baax lool moo tax mu ni kay nusabbihaka kathiran wa nadkuraka kathira ñu mën la di fàttaliku lu bari di la tudd lu bari innaka kunta bina basira ndax yaa ngi ñuy gis gis nga doomu aadama lépp lu mu nekk te mi ngi dimbali koo di tudd yàlla dafay am force ca loola da ngaa xëy di liggéey da ngay dem marché da ngay fóot da ngay da ngay da ngay da ngay looy def liggéey booy def essayel ngay tudd yàlla te mu dëggu ci sa xol yàlla moo wax Moussa ni ko ah ak Haarun wala taniya fi dikri bu leen yokkat mukk ci di ma tudd borom bi mu ne yéen ñi jihaad jihaad dafa métti de ila ida laqitum fi'atan fasbutu wadkurullah saa bu ngeen dajeeg seeni noon na ngeen ànd ak dal bu leen përeex përeexi waaye wadkurullah da leen tudd yàlla moo tax borom xam-xam yi wax ni zikr tudd yàlla bokk na ci gën a rëy yi may nit ki doole da koy may force moo tax nga gis saxaaba yi da ngay gis koo xamante ni benn baatab allahu akbar rek am na benn mbokk moo xam dafay def aar day wax ni moom loolu mi ngi ko gëmee ci lim doon liggéey mi ngi ko ci mi ngi ko ci gëmee ndax day seetlu ne léeg-léeg man ngay def la ngay def waaye baati tudd yàlla yi nga koy booleel muy day day yëg doole ju mu koy may joo xam moom yëg na ne amul woon loolu ma ne ko alquran moo mel noonu lépp lu mu wax rek lu wér la borom bi subhanahu wa taala mu ni qaal qad uutiita su'laka ya Moussa Moussa li nga ñaan lépp may naa la ko allahu akbar mbokk yi lii dal na xel de ñaan fi saasa ñu ne la nangu la Moussa di ñaan di ñaan ah rabbana innaka atita firawna mala'u zinata wa amwalan fi lxayaati dunya ah ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنون الا قليلا من قد اجيبت دعوتكما demal li nga ñaan may naa la mu jeex gis nga doomu aadama saa booy sell sell lu di baax baax lu di jub jub lu booy ñaan muy nangu ci saas kooku moom amut robinet buy xeeli la boo xam kenn mënu koo tëj loolu moom yow ak ma sàmbaak usaas baak borom xam-xam baak sëriñ baak taalib ñépp ko ci bokk yam dama ne robinet buy xeeli la boo xam ne kenn mënu koo tëj saa booy góorgóorlu ngay sellal say jëf yàlla rek mu tax ngay def te it yaa ngi moy te ndiku moy ki ngay ñaan booy ñaan muy nangu ci saasa amul sax ma dem te ñëw qad ujiba daawatukuma li nga doon ñaan nangu naa ko fastaqima waaye nag daa bokk ci lii tax ñaan gi nangu te jariñ la mooy istiqaama jub gis nga même bu yàlla nangoo ñaan gi nga dëng day nangu day nangu day nanguwaat lan la lan la ma yow fastaqima wala tattabiaanni sabila alladina la yaalamun borom bi subhanahu wa taala mu ni walaqad mananna alayka marratan uxra mu ne Moussa de tey li nga ñaan may naa la ko waaye yowit de am na yu ma la defal ci ginnaaw de xanaa mbaa yaa ngi koy fàttaliku gis nga kon tey ñaan gi nangu na waaye doomu aadama di fàttaliku démb daf koy gën a dolli courage ci li ci kanam id awxayna ila ummika ma yuuxa Moussa yaa ngi fàttaliku bi nga nekkee liir borom xam-xam yi dañuy wax ni gis nga doomu aadama léeg-léeg situation yi mu toll bu dëgëree na fàttaliku situation yi ko gënoon a dëgër ca gannaaw loolu da koy may courage pour mu gën a avancer xawma ndax wax boobu leer na wala déet doomu aadama foo toll ci ay jafeñ-jafeñ boo fàttali ko ca gannaaw jafeñ-jafeñ yu ko gënoon a métti te génnoon nga ci loolu daf lay ñemeloo fa nga jëm yaa ngi fàttaliku ba ma waxee sa yaay aniqdi fiihi fi taabut jëlal xale bi nga dugal ko ci kees faqdi fiihi fi lyammi jël ko nga sànni ko ci dex gi fal yulqihi lyammu bi saaxil dex gi na ko sànni ca tefes ga yaxuduhu aduwun lii wa aduwun la ka ngeen di bañ mu gis ko yàlla muy na dem mu gis ko allahu akbar moo tax borom xam-xam yi dañuy wax ni ida al inayatu laaxadatka uyunuha nam fal maxaawifu kulluha amaan kiiraangeeg yàlla bu la xullee ay bëtam fu la neex lalal sag masag nelaw luñ doon tiit jàmm la lay jural kon doomu aadama kiiraangeeg yàlla war a ñaan xoolal firaaw ne mi ñu doon nëbbu xale bi yàlla mu ni def leen ko ci kees sànni leen ko ci dex gi dex gi sànni ko ca géej gi géej gi sànni ko ca tefes ga nekk ci buntu kër firaaw na sama noon di sat noon na ko jël dara fenn la dut mujj xoolal firaaw na daf doon wër ay liir Moussa juddoo fu firaaw na newut yàlla tàggat keesub liir ga ba mu ñëw ci buntu kër firaaw maanaam ngir lii moo lay wan ni wallahi doomu aadama lépp lu mu ragal rek ngëm yàlla newul ci xolam lu dul yàlla subhanahu wa taala xoolal ki gën a raglu koo xam ni Moussa ñemewu ko woon ndax ba ba gone la yaay Moussa ñemewu ko parce que jàq na firaaw na xama dina réew na te lu ko neex def parce que moo nekkoon buur boobu xam nga li gën a yéeme mooy nga nekk buur réew am alal te amoo kilif firaaw na amuloon kilif parce que moo yilifoon ñëpp borom bi subhanahu wa taala mu ni ko wa alqaytu alayka mahabbatan minni wa li tusna ala ayni man yàlla maa jël ak cofeel bëggeel roof ko ci yow képp ku la gis même bu dee sab noonu da lay bëgg gis nga firaaw na firaaw na li muy saay saay saay saay bi mu gisee firaaw na bëgg na ko Moussa alayhi salaam bi mu gisee bi ko Firaaw na gisee bëgg na ko waaye nag li borom bi nag wa jaxadu biha wastayqanata anfusuhum zulman wa uluwa léeg-léeg danañ bañ lëf nga yaakaar ne dañ koo bañ fekk déedéet réeg réew rek rëy ak réew rek zulman wa uluwa Moussa alayhi salaatu wassalaam borom bi jël ak cofeel def ko ci moom gis nga bi ñu ubbee kees gi ak leer dañu ray yi joo xam ni ñi nekkoon foofu ñëpp ñu gis ko dañoo bëgg xale bi moo ne ko walitusna ala ayni yàlla mu ne ko maa la defal leer gi ak bëgg gi bëggeel gi ngir nga màgg ci loo xam ni maa ngi ci teg sama bët fa ñuy ragal nga yaroo fa sunu borom mu ni foofa nga yaroo foofa ngay dem yaroo ji fa muy kër firaaw na xoolal subhanahu wa taala mbokk yi ndax seetlu ngeen def def bii ak ni ko sun borom bi mënta woon a jël firaaw Moussa ñu toxal ko génne ko ci beneen dëkk mu dem màggee ji fa firaaw du ko gis ba mu ñëw déedéet ko am kàttan du def loolu te borom bi subhanahu wa taala ala kulli shay'in qadir maanaam lii dafay mayaat ab julit confiance ci boromam subhanahu wa taala amul loo war di tiit ci kaw suuf yàlla rek moo yore kiiraan gi te saa bu la aaree nga yéeru sunu borom subhanahu wa taala mu ni ko id tamshi uxtuka fa taqulu hal adullukum ala man yakfulu mu ndax Moussa yaa ngi fàttaliku jamono bi nga nekkee liir nekk ci biir palais bi ñuy wut ku la nàmpal xam ngeen borom wax sutul xasasu xaram na alayhi almaradi nàmpalkat yi ku ñëw allahu akbar moo tax gis nga benn borom xam-xam dafa xool qissa bi ba mu yàgg mu ne gis nga yaay Moussa nag kenn gënu koo liggéey la li war a moom li war a fi lépp naan diw kenn gënu koo liggéey ndey jur sa doom ñu war koo rey reyuñu ko ba pare ñu jël la nga di ko nàmpal ñu lay fay te fekk yaa ko waroon a nàmpal ci gratuite noonu ndax yàlla ci boppam mu ne wa xarramna alayhi almarada mboolem kuy nàmpal bu ñëwee rek yàlla mu ne maa araamal weenu ci Moussa Moussa comme ni mu ñëwee ci sunna saa ku ñëw tàllal ko ween mu bañ du nàmp te fekk mi ngi nekk liir ndax liir xàmmee na weenu yaayam ak budul weenu yaayam déedéet ndax nàmp la soxla na ñëw rek waaye kuñ ko jox rek mu bañ ndax yàlla ne na maa araamal ci moom beneen ween budul weenu yaayam di jaaxle amee fekk benn sëru Moussa alayhi salaam ndax Moussa am na ñu mbokkal Haruna ca la ak ndaw si nga xam ñenn ñaa ngi ne Mariam la tudd wallahu alam loolu nekkul yitte ji lool waaye ala kulli ndaw si ñëw ba tolloog xale bi dégg ñuy coow di wax naan xale bi di nangu wala naam xale bi di nangam ndaw si yegg si ne hal adullukum ala man yakfulu xanaa du ngeen ñëw ma digal leen koo xam ne mën na koo yore gis nga ndaw si bi mu waxee bam dafa am problème firawna gis nga saay saay loo yaakaare du ko xalaat dana ko xalaat ndaw si bi mu waxee loolu firawna ni ko niib tee yow ni nga def ba xam ku koy nàmpal ak ku ko dul nàmpal kon xam nga liir bi fa mu jógee waaye nag li ma leen waxoon ci bëccëg ci darse bi ab julit boo yeewul rek ñu yeew la ndaw si tamit dugg na xam na ni firawna jekku na ko waaye ndaw si def ko yëfu mag ndaw si mu ni ko ni ma def ba xam ni ndaw see bu ñëwee dana ko nàmpal mooy xam na ne dëkk bi ku fi nekk ormal na la yëg na la te kee yaay la joo xam ni xam na ne bëgg satisfaire firaw na jaral na ko firaw na kontaan jaral na ko lu mu am dana ko defi pexem ba nàmpal xale gis nga de moo tax ma ne la boo yeewul dañ lay yeew bu doon nu na buñ la waxee loolu rek ci saa sa da ngay afale xam nga mën ngaa mën ngaa wax sa fekk afale la tax a wax waaye xoolal tontu ni mu ko tontu ni mu jubee firaw ne ah wax nga dëgg de sunu borom mu ne ko farajaanaaka ila ummik ci lañ la delloo ci sa yaay kay taqarra aynuha ngir xelam gën a dal xoolal borom bi subhanahu wa taala dañuy yaay ji ni ko anirdiihi bu la neexee nampalal xale bi fa ida xifti alayhi bu dee da ngaa ragal fa alqii fil yammi sànni ko ca dex ga waaye foofu damay wax ne yaayi Moussa nag kenn gën ko dëgër ndax anir anir diihi man de wax dëgg yàlla ci saam xelam bopp moo ma gën a doy an xiifil yem teel sa doom ji luy xew nga mën a gis moo gën nga di ko sànni ci dex goo xam ne ma ngay fayi fayi xamoo fu mu jëm waaye xool wóolu yàlla subhanahu wa taala anir diihi bu la neexee nàmpal ko fa ida xifti alayhi bu dee da nga ragal fa alqii fil yem sànni ko ci dex gi ah mu ne inna radduhu ilayk soobe yàlla xale bi dana dellu siwaat te it ma tegal la ci wa jaayiluhu min al mursalin ab yonent lay doon de maanaam yaayu Moussa alayhi salaam borom baa ngi wax ci weneen saar mu ni tuuti kon rek xol bi teqali koog moom moom Moussa alayhi salaam ah lu tax loolu ndax tiit gu mu tiitoon ak jàq gu mu jàqoon yaayu Moussa la di koy sànni ci dex bi borom bi subhanahu wa taala mu ni ko fa rajaanaaka ila ummik Moussa yaa ngi fàttaliku situation yi ni mu garaawe ku ne xam na ni situation yi moo gën a métti fii Moussa toll ndax fii Moussa am na doole yi mën a riposte am na làmmiñ ñu mën a tontu am na mbokk yu ko mën a dimbali te loolu lépp amu ko woon bi mu nekkee lii borom bi mu ne kay taqarra aynuha wala tahzan bul jàq Moussa yaa ngi fàttaliku wa qatalta nafsan mosoon nga fee rey nit ca at yële passé fa najjaynaaka min al-ghammi tiis wa nga nekkoon maa la ci musal ndax maa la xelal nga génn dëkk bi nga dem wa fatannaaka futuna am na ay xeeti natt yu bari yoo xam ni comme ni ñëw ci xadis Abdullah ibn Abbas donte borom xam-xam nañ ci ay wax yàlla nattu la ca daal ala kulli xaal fa labista sinina fi ahli madian yaa ngi fàttaliku at ya nga amoon madian yow Moussa kere bi ngay dem madian amoo dara da ngaa fàtte kere bi ngay dem amoo dara da ngaa dem ba ci ron garab bi nga toog fa rabbi yow sunu borom bi ma an'amta alayya fa an akuna tahiran lil mujrimin gis nga de ña yàlla nga doon ñaan subhanahu wa taala Moussa amu woon dara xamoo ci dëkk bi kenn yow daal ci sottax ndiko gi ganam sottax ndiko ndox ci teen ba di wëggal ay jigéen ca la la yàlla xittilee yàlla moo la tànn moo tax mu ni ko fa labista sinina fi ahli madian yaa ngi fàttaliku at yooyee summa ji'ta ala qadarin ya Moussa Moussa yow bi ngay ñëw dogal bi yàlla moo la indi fii ah wastanaatuka li nafsi man yàlla maa la tànn idhab demal léeg-léeg borom xam-xam yi ñuy wax ni gis nga nit bu ñemee dañ koo dee Moussa alayhi salaam wax yii ñu ko wax ci li koy dolli courage la bokk. ndax xam ngeen ni borom bi yónni na ko waaye fàttali na ko yoo xam ni moo tax ma wax la ne la léeg-léeg situation boo mën a toll fàttalikul yi ko gën a dëgër si nekk ca gannaaw gis nga bu loolu amee da ngay ñemee xottiwaat jëm ca kanam borom bi mu ne wastanaatuka li nafsi maa la tànn ngir man ci sama bopp idhab anta wa axuka bi ayaati demal yow ak sa frère bi yóbbaale samay aaya wala taniya fi dikri bu leen tayyi mukk ci dima fàttaliku gis nga doomu aadama saa buy fàttaliku yàlla di fàttaliku aljana di fàttaliku sawara di fàttaliku xéewali sunu borom yi yonent yàlla yi tolloon ci ay situation yàlla dimbali leen ah fa najjaynaahu min algammi wa kadalika nunji lmuminin ngay fàttaliku loolu fa ahlaknaahu wa man maahu jamian yooyu nga di ko fàttaliku loola daf lay ñeweloo pour nga dem moo tax faw nga jàng alquran gis nga boo bëggee am gëm yàlla gu dëgër faw nga jàng alquran soo bëggee situation boo mën a toll nga am ak dal faw ngay tadabbur quran soo bëggee doo am lenn looy tiit ci kaw suuf faaw ngay fàttalik histoire yi passé woon loolu mooy tolloog li war a naan ku ñeme dañ laa déey parce que am na yëf yëfaan yoo xam boo ko fàttalikoo dootoo ragalati dara borom bi subhanahu wa taala mu ni idhaba ila firawna innahu taga yéen ñaar dama leen di yabal dem leen ci firawna firawna réew na def mu nekk nii ak tuxyaan mooy réew ci wolof ndax xam ngeen ni bew du lenn lu dul réew gis ngeen olof day wax baat yoo xam ni moo tax damay faral di wax ni gis nga ñi jàng Qur'an te jàng ko njàngum daara te jàng ko njàngum tafsir ci wolof bu set wicc ñoom ñooy gën a dégg quran keneen ku dul ñoom li ko waral mooy olof dafa am ay baat yoo xam ne li nit ñi foog ni loolu la du ko misaal bi ma ciy joxe mooy da ngay dégg ñu naan he mag mii kii ni mu ni mu texetee xam nga fi ne bu ñu la waxee da ngaa texet yow da ngay reet da ngay re texet bu ñu la ko waxee sëñ bi jooya xam nga texet mooy lan mooy mag mu réew xam nga xale dañ naan ko da ngaa réew mag kenn du ko da ngaa réew mag dañ naan ko da ngaa texet gis nga bépp mag guñ ni kii dafa texit rek mooy dafa réew texit mooy réew parce que gone dañ koy wax da ngaa réew waaye mag dañ koy wax texit parce que li gone def li mag def bañ ni ko da ngaa texit moom la gone def donc ñu ne ko da ngaa réew benn la kon baat yu mel noonu gis nga toxyaan ci boppam mooy réew ndax du leen lu dul am alal beew faaleetoo kenn yaakaar ni loolu neex mën nga ko def waaye xool firawna daa réew taxa ala fil ard firawna mi xoolal sifaat yi ko suñ borom jox waaye teewul fa quula lahu qawlan layyinan moo tax gis nga daawakat bu ne war nay bàyyi xel ñun boo gisee ñu bari ñu ngi leen daawa ba léegi ñëwuñu ci ñun la de inna firawna ala fi l ard wa jaala ahlaha shia yastadaifu taifatan minhum yudabihu abnaahum wa yastaxyi nisaahum gis nga de inna firawna wa haamana wa junud kaanu xaatiin ah innahu taxa yooyu yëpp borom bi di ko melal te teewul mu ne faqula lahu qawlan layyinan bu ngeen demee nag wax leen ndànk def leen ndànk wàccee sa taasio bi Moussa ngeen wax wax ju nooy laallahu yatadakkaru aw yaxsha loolu mooy tolloog inna rifqa la yunzau min cheyin illa shaana gis nga def ndànk loo ko dindi rek mu gaafal ko gis nga yow mi daawa saa boo utiliser force ak doole ak gëddaateeg arsalewaate wax ji day desee jàll waaye saa boo seet lantaloo sànnee ay étincelle ci xel yi pour ñu xalaat xel mu yàlla na mu ci moom gindee ko rek gën a xalaat da ngay gis doomu aadama pour nga def ndànk ba am ci moom li nga bëgg moo gën a yomb wata borom xam ne dañuy wax ne gis nga jigéen buy sëy mën naa ñàkk lu bari ci borom këram te fekk li ko ko xañ mooy na muy jëlee parce que dafa bëgg a jëlee force ak doole te góor kenn du jëlee ci moom force ak doole góor ñaa ngi nii xam nañ li ma wax moo tax yonente yàlla bi mu ni gis nga def ndànk loo ko si dindi rek mu ayibal ko qula lahu qawlan layyinan laallahu yatadakkaru aw yaxsha alqawlu layyin mën naa nooyal xol ba tax nit ki yatadakkaru mu waaru fàttaliku te su fàttalikoo rek dina jëriñu aw yaxsha wala mu tiit ragal yàlla gis nga yàlla moo la gënoon a xam ne ñaar yi benn du ci am seetlu loolu borom bi mi ngi wax Moussa defal lii defal lii ndax léeg-léeg am te yàlla xam nañu loolu du am waaye du tee nit ki def waru garam kon diw dina gindee ko du gindee ko yow soo yoon néew ci defal sa waru gar rek yàlla xam na ni yow xamoo de waaye yàlla xam na ni Moussa bu demee walaw jaatum kullu ayatin la yuminun xata yaraw al azab al alim firaw na moom bugga la koy tax a gëm yàlla xamoon na loolu waaye nag li yuqima al xujjata ala al xalqi ajmain faw mu yëkkati lay wi ci kaw nit ñi moo tax gis nga fi mu ne yow diw dana gindeeku du gindeeku kii jërëtul waar ndax boo ko waaree mu nang loolu dañ koy café waaye jërëtul sax di café yàlla subhanahu wa taala mooy gindi laallahu yatadakkaru aw yaxsha qaala ñoom ñaar ñu ànd ne rabbana innana naxaafu an yafruta alayna aw yat an yatga ñu ne dañuy tiit firaawun mu ëppal ci suñu kaw wala mu beew ci suñu kaw def ñu loo xam ne waruñu ko woon def ah Moussa alayhi salaam sunu borom ni ko qaal laa taxaafa bu leen tiit inna nii maakum da ngeen a fàtte ne maa ànd ak yéen man mi leen yabal maaya gii gan maaya la yéen ñiy jàng aqida maayatu nasri wa ta'yid inna nii maakum maa ngi ànd ak yéen ñu bari ñi nga xam ne ñoom foo gis yàlla nga fa loo dem yàlla yàlla moo ànd ak ñoom loolu doy wax de maaya gii maayatu nasri wa ta'yid maa yëg maa ngi gis asmau maa ngi dégg wa ara maa ngi gis ci sama ndimbal ak sama kàttan wa illa sunu borom amul kenn koo xam yaa ngi dox mi ngi ànd ak yow jëmam ji di dem déedéet loolu amul gis nga mu ne fatiyaahu dem leen fa quula inna rasula rabbi gis nga Moussa li aay ji bokk na ci léewam ne Haaruna yonent la gis nga wa jaalna maahu axaahu Haaruna wazira fii mu ni inna rasula rabbik sanna ñun ñaar ay yonenti yàlla lañ farsil na ala bani israil bani israil ci moom ñii nga jël def leen ay jaam lañ bëgg nga libéré leen wala tuadibuhum xorñoñal yi nga leen di xorñoñal lañ bëgg mu arrêté bis ni ki tey gis nga firaaw ne bi mu déggee lii dafa tiit xam nga lu tax gis nga ab borom moo tax gis nga jàng wallaay mbokk yi jàng am na solo gis nga buur bu ngeen fàttalikoo ci jamono yii passé ñu tolloon ci ay élection waxoon naa fi lu mel ni ci benn xutba gis nga buur bu am xel am na yenn xeeti kàddu yoo xam ne mosoo koo dégg saa boo ko déggee rek xamal ni sa nguur a ngi yàng loolu nag ñi xam dëgg ñoo koy seetlu am na yenn xeeti kàddu yoo xam ni saa boo ko déggee yëgal ni sa nguur gaa ngi yàng lu kenn mës tamit ñeme ci dëkk bi saa bu ko nit ñemee rek xam ne amal lu xew benn borom xam da koy nitili nitili bu xëy na nit ñi dañ koy ree waaye am na solo trop day wax ne gis nga borom tool bu dugg say ci tool bi ni yunn surga yi soo musaana wax dañuy déglu mun nga wax ak kenn mu wiccax la loxo nga wax ak këcca des mu yeexamtalu mu ni reculer bul avancer reculer am na lu xew mu ni gis nga boo ko defut dañ lay yenu door ci suuf wax na dëgg de gis nga képp koo xam ne da nga koo yilifoon mu xëy xëy benn bis rek wane ak fipp ak révolte rek defal ndànk am na lu xew loo xamante ni dubbira bil layl bañ koy lijjanti guddi la fekkee woo Moussa li ko li tax mu tiital firawna mooy lii Moussa wax tey kenn musu koo ñemee wax fi abaihim al awalin firawna wala tuadibuhum xorñoñoye lañ bëgg mu dakk tey qad ji'naaka bi ayatin min rabbik andi nañ kéemtaan yu bàyyi ko sunu borom tey waaye foofu waxu ko lan lan la de moom laa leen waxoon ni leen booy xare élément yi nga am bul ko teel di feeñal parce que da ngay daanu am na daal lu ñu denc am na lu ñu ëndaale bi ayatin min rabbik aaya moom daanaka dafa lëmb lu bari mu ne wassalaamu ala man ittaba al huda xoolal wassalaamu alif ak laam bil maarifa xam nga mën na ko wasalaamun jàmmi yàlla yàlla na nekk waaye wassalaamu li ñuy tuddee jàmm moom bu yow nga xam ne firaaw na kenn dootu ko amati lu dul ala man ittaba al huda maanaam mi ngi ko commencé menacé moo tax gis nga alxuraan mbokk yi li ci nekk ci balaaga yàlla rek moo ko xam wassalaamu li ñuy tuddee jàmm bu yeboo nga yëg ni bis ni ki tey kenn dootu ko amati ci dëkk bi lu dul ala man ittaba al huda ku topp njub gi ça veut dire que Moussa Firaaw dafa amul xel waaye xamal na ko ni bis ni ki tey soo ma topp da ngay xal waaye nag bu la yàlla narta gindi doo gindeeku inna qad uxiya ilayna anna al adaba ala man kadaba wa tawalla borom bi wax nañu ni mbugal moom dana wàcc tey moom ci képp koo xamante ni dafa weddi dafa wane gannaaw gis nga li lay wan ni firaaw na tiit na mooy fa man rabbukuma ya Moussa parce que mi ngi commencé intéressé wu xam nga firaaw na li lay su fekk continuer dafa tontoo ni waaye da ngeen may fonto may wax ngeen ma moo ne firaaw na yooyu la waroon a tontu parce que lii Moussa wax kenn mësu koo ñemee wax ci dëkk bi ñaareel mooy fit bi Moussa am maanaam Moussa bi wax nit ñi ñi ngi tiit parce que loolu kenn mësu koo mës a wax firaaw na kon rayal leen ma kii jox leen ma wax ay waxi wax yam daan wax firaaw na waxatu ko de li lay wan ni firaaw na jàq da booy lam daan wax waxatu ko léegi mi ngi commencé am du duutal mu ni fa man rabbukum am waaye yéen sax léegi léegi kuy seen yàlla kon kay firaaw na gëmut li mu waxoon moom newoon na ana rabbukumul aala yow yaay yàlla ji looy laaj jeneen yàlla lu soñ ci yeneen yàlla xam nga boo toogee nga ni maa fi man ñu ni eh am na keneen ku la man ci ginnaaw nga ni waaw wan leen ma ko kum door yow yaa ngi commencé sikk saak ak sa bopp woo leen ko mu ñëw ma duma ko mu tëdd nga waroon a wax ndax wóolu nga sa bopp waaye fa man rabbukuma ya Moussa mooy kan mooy seen borom waa léegi wax leen ma sax ki ngeen di jaamu kan la fii nag Moussa daal di am occasion pour waare ndax léeg-léeg am na xeeti waaraate yoo xam ni boo ko dugalee ci lu dul buntu occasion mën naa bañ a jàll ndax li ngay wax te kenn laaju la ko li ngay wax ñu laaj la ko moo gën a sax rabbuna alladi aata kulla shayin xalqahu summa hada firawn te boo seetloo Moussa ni mu ko tontoo maanaam tontiinu firaaw na xam boppam la yow nee nga yaay yàlla ñun nee nañ ñu ngi ànd ak suñu borom rabbuna ñun suñu borom alladi mooy ki nga xam ne aata kulla shay'in xalqa ku ne moo ko def mu mel ni mu mel ci mbindeef fas yàllaa ko def mu yor jëmmi fas mbaam yàlla def ko mu yor jëmmi mbaam yow firaaw na nga mel nii yàlla moo tànn lii di nit lii di jinne lii di mbaam lii di xar li xam nga loolu boo ko waxee borom xel dana xam ni sa waay ki def lii moom a gën a moom gën a ponka la xalqahu summa hada te it moo ko gindi nag fas ñu koy war di ko womat di ko takk saret ah nag ñu koy war ci ñenn ñi di ko di ko di ko takk machine di ko di ko lekk ah ila axirihi summa hada ku nekk yàlla moo la gindi nga xam fa nga jëm gis nga firaaw na daal di dolli beneen laaj fama baalul quruni ula waa léegi nag comme moom mooy suñu yàlla léegi gis nga de mi ngi commencé intéressé waaw fama baalul quruni ula léegi suñ bàyyi njëkk ya nga xam ne ñoom fekkee wuñ lii ngay wax ñoom nu yàlla def ak ñoom mu ne ko ilmuha inda rabbi loolu moom yàlla moo ko xam fi kitaabin la yadullu rabbi wala yansa yàlla du fàtte moom du du jaawale te it nag alladi yàlla moom jaala lakum al arda mahdan suuf sii ngeen di tiitaroo yàlla moo ko talal mu mel nii wasalaka lakum fiha subulan yàlla moo ci def ay yoon fi ne boo jógee xam sa yoonu kër loolu yombalug yàlla la wa anzala min as-samaa'i ma'an gis nga firaaw na yi ko Moussa di wax yépp mënu mën a mënu cee def benn moom xam na loolu anzala min as-samaa'i ma'an yàlla moo wàcc ndox mi ci asamaan firaaw na xam ne mënu ta wàcc ndox fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta yàlla nee na ñu génne ci na azwajan ay peer min nabatin shatta granat orange mandarine pomme yooyu yàlla moo ko def kulu lekk leen yow mii ci ñii lekk nga bokk yow doo yàlla di kulu ci ñii lekk nga bokk waraaw anaamakum te ngeen dem sàmmi seen xar yi inna fi dalika la ayatin li ulil nuha borom yi min ha gis nga suuf si bu yeboo ku ciy dox nga def ndànk fii firaaw na doo yàlla de min ha fii ñu nekk ci suuf si xalaqnaakum ci leen yàlla sàkk wa min ha suuf si ñu joxañ nuidukum ku dee fi lañ lay suul fi ne booy dee di suulu de wa min ha fii ci suuf si nuxrijukum taaratan uxra xam nga lii ku yàlla def ci yow nar a gindeeku wax dëgg yàlla waare na borom mu ne wala qad araynaahu ayatina kullaha aay yi amoon yépp yi Moussa andi woon yépp wan nañ ko fa kaddaba wa aba mu dummooyu wane gannaaw gis nga aayaat yi boo ko toppee daanaka ba balay xisa bi jeex da ngay gis borom bi subhanahu wa taala xeeti njàngale yi nga xam ni maanaam jenn aaya rek la mën a lënk lënkaloo mooy aaya ji naan maa farratna fil kitaab min shay téere bawut dara nu ñuy daawaa nu ñuy jëflanteeg sab noonu nu ñuy jëflanteeg ku bew mboolem loo xam ne doomu aadama soxal na ko mi ngi ci biir téere bi maa farratna fil kitaab min shay téere bàyyiwut dara kon mbokk yi loolu di ko tadabbur di ko settantal mimma yazidu l iman wa yazidu l qalba nuuran ala nuur leer gi ci nekkoon moo tax saxaaba yi dañ doon wax ni sharia dafa ñëw ñu gëm ko mu nekk leer ci suñu xol alquran wàcc nekk nuurun ala nuur leer gu ñëw fekk si leer xam ngeen suba wax day gën a leer rek yal na borom bi defal ñu leer alquran te dimbali ñu bañ bañ a bokk ci ñi nga xam ne nag mahrumin wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa